alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxatimi sayidina muhammadin nasiri alhadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wabarakaatu barakaatu. di dellusiwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yéen li ñu sos ak yéen muy xadiisu sabaax nekk ci nidaatu rahmaan ñi leen koy toppal xoote gi yàlla xoo ay jaamam muy yaa ayuha lazina amanu yi nekk ci alquran ma waxoon la limba dana mag juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent yooyu yëpp ñëw naag yow nag ba ci fanweer ak juróom-benn nekk ci buntab yaa ayuha lazina amanu laa tattaxidu bu leen xaritoog bu leen jàpp ku jàppee seen diina ji ay caaxaan jàppee seen diina ji folklore jàppee seen diine ji muy diine comédie jàppee seen yonantu bi muy nit ku xeewu ku muus kooka relation bu mën a dox seen digganteeg ñoom dagg leen ko kon loolu la ci yàlla santaane ba mu ca bàyyee ko mu wax ju mu wax noddu te waxoon naa la ko la aju ca loola ba duggoon ci noddu démb ci waxtu wii waxoon la benn américain dafa dégg noddu rek xamul sax arabia waaye yooya am lum jeexital ci xel ak xol ba ba xegg ca ruuxu ga la dugg ci diine ji nodd bi waxoon naa la première année ci gàddaay ak yonent bi ci madinatul munawara ci lañ ko yoonal waxoon naa la nela gannaaw bi mu tabaxee jàkkaam jooja ju màgg ja ndax juróom benn weer la fa am rek samp jàkka ja tabaarakallaahu du ko defee séexalee muhajiruna yag wàllan saar ma ngay tabax état islamique su ko defee nag foofa la la ko yàlla joxee nodd ba mu ko koy jox message bi da koo jaarale ci abdullah ibnu zeydin abdullah ibnu zeydin ibnu abdi rabbihi moo tëdd ba guddi gannaaw bi saxaaba yi dajee di joxe seen xelaat ci ban symbole lañ war a taxawal bu bu waxtu yu jotee ñu man cee dajale mu man ñoo dajale ndax yàlla ko waxoon ne ko wa saawirhum fil amri yàlla ko waxoon ne wa amruhum suura baynahum ñii naan nañu dóoru kolos ñii ne nañu wal mbiib mu jigi ñi tasaaroo ñibi moom ba mu tëddee ba guddi mu ne Abdullah ibnu Zaydin la mel ni kuhut ak mbiib yore ko xam lu ko feneen loo koy defee mu ne ko bëgg rek bu waxtu jotee ma man koo mbiib ñëpp dajee ñu mën a taxawal waxtu yàlla wi mu ne ko kaay ma wax la baat yu gën loolu fuuf ndax yéen da ngeen a nekk xayra ummatin uxrijat linnaasi kon dañ leen a war a roy waaye warul leen a roy kenn métier yëpp métier am toppandoor moo ci gën yomb te góor dëgg di jàmbaar dafa wara a góor góorlu bañ koy toppandoor waaye warul yaafus caaral bay toppandoor loo xam ne luñ defoon ba pare la bu leen fekk seen naataango yi di ay yahut ak i nasaraan amoon symbole yoo xam ne bu waxtu jotee moom lañuy dóor lii ñu koy wal tax ñu mën a daje yéen ngeen war a nekk ñu ñuy toppandoor ngeen ne yéen a ngi seen bopp dem di toppandoor yi déedéet kaay ma jox leen loo xam ne yen rek yéen a ko mos a di ko xootee woo ci waxtu yàlla wi bu jotee ca julliya te subaar ak tàkkusaan ak timis ak waxtu jumaa mu ne ko waaw lan la ci la ko wax allahu akbar ji ma la waxoon démb ca noddu ga bam pare muy allahu akbar allahu akbar ba mu jeexale ba nodduga ga jeex ma waxoon la ko démb mu yokkal ko ca tamit ne ko bu ngeen noddee nag ba ñëpp daje bala bala ngeen taxawal julli ga na ngeen tamit teg yi moo tax mu ne daal ba ma ko waxee ba pare rek su ma staxara anni gayra baidin suma qaala wa taqulu ida aqamta salaata allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu laa ilaha illa allahu mu jox ma baat yi ne bu ñëpp dajee taxawal leen ko ngeen doora kabaar julli kon ñaar yi ilham la ñëwee ci Muhammad ibni Abdillahi ibni Zaydin moom lañ ko waxyu yu wax yu yenki ba mu xëyee rek la ñëw ci yonent bi di ko ko nettali yonent bi ne ko yow de jéntuloo mais danga ngaa gis boo demee kat riwaaya bi nii la tëddee an Muhammad ibni Abdillahi ibni Zaydin ibni abdi rabbihi qaala haddasani abi Abdullahi eh, maanaam haddasani abi Abdullahi ibni Zaydin qaala lama amar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin naaquusi yu'malu li yudraba bihi linnaasi li jamci salaati taafa biya wa ana naimun rajulun yaxmilu naaquusan fi yadihi fa qultu ya abdallah attabicu naaquusa qaala wa ma tasnacu bi qultu fa qultu a nadcu bihi ila salaati qaala afala adulluka ala ma huwa xayru min dalika fa qultu lahu balaa qaala fa qaala taqulu allahu akbaru allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ah, ba noddu ga jeex mu ne nag soriwut dara mu yokkal ma ke ne bu paree ba ñëpp dajee boobaa nag ngeen wax nag allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allah bam jeex maam xalifa ci mën mi dafa wax ne noddu bar liqaam baru booy noddu allahu akbar ngay wax da koy daanee ci sukkoon waaye booy liqaam nag allahu akbaru ngay wax da koy daane ci damm moo tax ci mën a jàngale ma dafa daan wax ne noddu bar liqaam baru kon booy noddu allahu akbar booy liqaam allahu akbaru bam ko ko joxee nag mu xëy mu ne ma xëy ñëwal yonantu bi fa lamma asbaxtu ataytu rasulallahi fa axbartuhu bima raaytu fa qaala innaha la ruya xaqin insha allah fa qum maa bilalin fa alqi alayhi ma raayta fal yuazzin bihi fa innahu anda sawtan minka fa qumtu maa bilalin fa jaaltu ulqihi alayhi wa yuazzinu bi xoolal li rek yontu mën a jàngaleen ba ma xëyee ñëw wax ko ko mu ne ma wallahi gént ak dëgg la bu neexee yàlla demal nga ànd ak bilaal nga sa ko baat yi ba mokkal ko bu waxtu wa jotee nan noddu ndax moom moo la gën a e, am kaddu ñaareel bi moo la gën a neex baat kon mbir mu ne nañ ko jox waayam waaye bul ko jox sa waay suñ péncam Sénégal mii li ko yàq mbir mu ne boo ko yëkkatee sa waay nga koy jox au lieu nga jox ko waayam su boobaa rek mu yàqu doo ca man dara waaye gis nga waa ji Abdoulaye ibnu Seydine mile li ko noddu gi ñëwal yépp ci gént gi gannaaw bi sahaba yi xalaatee ba tasaaroo yonentu bi xelam gënoon a jeng jëm ci defal mbiib ba mu joxe ndigal na nañ defar biib yàlla jël wax yu ilham yenki wal ko ko moom mii li mbir may jaar ca moom ñëpp yonentu bi yëg ne waayam la moom waaye nag waayu noddu gi dëgg mooy bilaal moo la gën a compétence kon demal nga jox ko ko ndax moo la gën a neex baat te noddu dañ cee bëgg baat bu neex moo la gën a sori kàddu rajo amu fi te noddu comme dangay ngay xoote sa kaddu dafa war a sori ku ko dégg mën a ñëw yonent bi jox ko kon jox ko bilaal waxoon naa la démb suñ penc mi li ko yàq yëpp tasaare famille yi ñi bari te mënuñ dara tasaare suñ dëkk yi ñi bari dëkk ba rëy mënuñ dara tasaare suñ gox yi gox ba tasaaroo xam lu ne te mënuñ dara dara yóbbuwul ñu ko dul ñàkk ànd ñàkk ànd boo toppee tànk ya soxorante mooy kenn ku ne lam man duñ ko ko bàyyee waaye kay lu waa man te yow mënoo ko sax da nga koy fexe nga xañ ko ko nag doo ko fi defee du ma ko fi defee donte yow li ngay xañ waa ji di ko ko soxoree buñ ko yëkkatikoon teg ko ci sa loxo sax mënoo ko doxal waaye daal yow li la neex daal mooy ne doo ko doxal duma ko doxal dama kon nag loolu mooy kon du dox rek lay tekki bu ma ko doxalu doxaluloo ko keneen du ko doxal mooy du dox rek kon du fi doxee daal moo yàq suñu lépp waaye dëkk yi may déglu yëpp suñ dagale woon waa dëkk ba loo ko dooree ci fukki xat ba ke ña am juróom ñetti fukki xat ba juróom ñeent fukki xat kenn ku nekk ñu ne loo man andil nangam lañ bëgg a defar wallahi buñ dajalee seen man-man yi dana fekk ndeketewoo lañ doon wuti takk morso yu xonq yëpp mi ngi woon ci seen biir dafa doon nelaw rek waaye ñoo ko xeexutoon waaye buñ ko xeexee rek mu taxaw ba taxawal leen lañ bëgg mu taxaw lépp taxaw su boobaa ñu ne yéen mag ñi xam xalaat indi leen yéen mag ñi ñoom li leen di laaj nag mooy xalaat ndax yéen a fi gën a yàgg yéen a gën a xam li yéen a fekkee démb bu fekkee tey waaye léegi nag li ko yàq léegi léegi nag bu ñu mag ñi nañ indi seen xalaat ñu ne yéen ndaw ñi ñoom laaju leen xalaat xam nga liñ leen laajam seen poos ak seen doole waaye li yàq tey suñ penc meeg dëkk yëpp boo fi dajale woon réunion xale ba gën a ndaw mooy gën a goox yëkkati ne mostasu looy wax mu ne kàddu dama ci am xalaat yow ko la laaj xalaat ndaw kay yow li ñu la laaj mooy demal nga joxe sa doole ji da nga yëkkati sa xalaat ji tañ baaxee xalaat yi mag ñi waaye su fekkee kay yow li mag ñi moom boo ko bëggee jël looy def yow li nga moom mooy joxe doole wala joxe alal mag mi moom li man xamatul doole xamatul alal xalaat la mën a joxe yow nag nga bàyyi sa ànd bi nga waroon a toog muy ànd ab def dara ak yëkkati sa ñaq ak saalal ne man damay dem ci ànd bi gën a yomb mooy àndam mag yi mooy laaj xalaat réunion yëpp moo tax ci réeroo dong lañ mujj réunion boo ci dégg dañ doon réunion dañ doon ma ne ko mbaa réeroowu leen ku ma ko wax ma ne ko mbaa réeroowu leen réunion yu bëri réeroo rek réunion boo xam ne dana bëri koo mere woon mënoo am accès ci moom nga mën a nag sànni xale kàddu ne ah, may ma ñii de ponse ñoo wax mu ne may ma ma ciy sànni kàddu dama am kàddu gu ma ciy sànni sëriñ Maodo si mu baax ma doomu Mawlaay sëriñ Abdul Aziz Dabaax dafay wax ne mbooloo moo dem nit ne may ma ma sànni kàddu boo xeboo baare sa xar-xaram bi ak sa bopp bi kàddu gu ñuy sànni man naa xaañ ku ne su ko defee nag ma cee bëgg a sànni kàddu yëpp dafa am ku mu bëgg a xaañ rek am na ku mu mere woon ut na accès bu mën a jaar amu ko tey nag am na occasion mu mën faa wax wax joo xam ne ku ne dana xam ne wax ji diw ko moom kooka tamit ne may ma maa bëgg a tontu xam naa ci kàddu waxaat dara duñ ko fa jëlee waaye bu ñu seetoon kenn ku ne lim man ci famille bi ñu jox ko kenn ku ne lim man ci dëkk bi ñu jox ko ko kenn ku ne lim man ci parti bi ñu féetale ko kenn ku ne li man ci association bi ñu jox ko ko kenn ku ne lim man ci daayiri bi ñu jox ko ko wallahi léppay dem am na ñoo xam ne denc xaalis lañ man mënuñoo joxe xaalis nag xaalis boo koy dénkaane da nga koy seet ka ko gën a bëgg te koo xam ne mu ci ji jamono boo ko laajee mu ne mi ngi nii donte la nga ko joxoon sax moom dana la jox lu ko toll waaye duhut booba ba tey baax na ndax ji jamono ñaareel booy dénk dénkal ku mën a fay rek moo ci gën a bëri ku mën a fay moo gën a bëri waaye ba fi mag ñi nekk koo fi dénk fanweeri junne nga takk ko morso bi nga ko takkee yow yaa koy tekki waaye jii jamono kat koo fi dénk fanweer junni mu ne yàlla ñëw na faj soxlaam ba pare soo ñëwaatee nag mu ne ah dimbale ma nag soo ko boo ko boo ko soxlaa rek nga teel ma koo wax xam nga loolu du jub teel ma koo wax rek bu ma bett te dañ la ma am am ma dénk la soo ko teg ana jub ana ragal yàlla bu la ko teelee wax nga dañ bëtu fu ne nga dem ba dagale ko nag tabaarakallaahu door ko ko jox su boobaa yow joxoo ko yem la dénkoon mais yeneen nga ko jox ndax mën naa xam bam la koy jox cent cinquante mille ya boo demee lépp bee dix mille ya yow na bi nga ko jox cent cinquante mille yi la mille franc nga ca deux mille nga ca cinq cent franc nga ca ba mel ni sëriñ Abdul Aziz mu baax mi dafa mosoon a ñëw ndakaaru am benn alal mu am kum ko jox ne ko téel ma lii ah toog ba ngoon rek yàggul dara ngoon rek su bëggee la ko jox ngoon mu ne ko man kat demal li ma la joxoon ma caa soxla nangam waaja ca lay xendu fu ne mu dem di lijjant ji ba sonn ba mu ñëw ne ko a ah, jàppaleel ci lii mu ne ko xaat fekk xaat jot na dénk la cent cinquante mille jox ma ci cinquante mille nga dem ca marché ba fu ne nga dem di jéem a lijjanti loola ñëw ne ko a ah, jàppaaleel ci vingt cinq mille yi ba ci kanam mu ne ko xaat xam nga ne ko kon bu dénkaane ba xamoon ñaari fan ñetti fan du ci jot ci dara kon nag loola lépp moo yàq suñ penc mi ci mën a denc xaalis nañ ko ko jox jamono jii nag man li ma gën a hóolu booy dénk dénkal ko mën a fay moo gën a bëri dénkal koo xam ne bu ñu soxlaa taxamuñu mu man ñoo lebal waaye tamit dénkal koo xam ne bu santé la nga ko dénkoon tamit moom mën na koo fay te nekk ko am jom am ngor bañ am am dignité am personnalité am diine bañ ko ko yàq nekk ku ragal gàcc te bëggu ngóora ku mel noonu lañ war a dénk xaalis waaye ku ku ku boo ku ku xemale yaa bon yaa soxor waaw góor mu xemale ñaari baat yooyu waaw góor ak yaa bon yaa yaafus ku boole ku xemale ñaari baat jar si dénk xaalis kon ñi mën a denc xaalis dañ ko denc ci association beeg daayira beeg mbootaay geeg parti yi ña mën a laaj am na ñoo xam ne yàlla leen may ku laaj nga jox leen ñu mën a laaj ñu ne yow yow lañ yow lañ sas laaj bi waaye tamit ñi mën a summeeku ngir liggéey ñu ne yow déwa leen jiite jàpp leen ngeen summeeku ca liggéey ba ñi xam xalaat nag nuñ koy defee ah su boobaa ñi laaj mag ñi ñu joxe xalaat waaye léegi joxe xalaat moo gën a yomb ci métier yi ndaw yi dañ koy xëccoo mag ñi tam ndaw yi seen rôle mooy laaj joxe alal ak ñàkk mag ñi seen rôle mooy joxe xalaat waaye penc moo dajeeg réunion ba xale ba gën a ndaw mostasu jox ma kàddu dama ci am xalaat ñu ne woowaa lañ ko war a ma yow kenn laaju la xalaat yow doole lañ la laaj ak li sa poos bi mag dëgg-dëgg moo am expérience yi bu am tay bu ko nattalee rek bu joxee xalaat mu baax ba mel ni benn buur bu kàccoor dajale population ba ne leen bu subaa da ma tabaxal benn batiment boo xam ne du hegg ci asamaan te du laal suuf diggante asamaan ak suuf rek lay nekk suba nag na ngeen ci bàyyi xel na ñëpp xëy si jéemaa tabaxal batiment boobu bu ngeen ko defut ma rey leen fekk booba nag avant mu koy def dafa rey mag ñëpp ba mu des ndaw ya ndaw yëpp ñëw ak seen doole dajee ñiy wàccee seen tuba yaag ñi sol ay budéeg ñi sol ay jiin ñi sol kabak gannaaw ñi sol weeri gannaaw tax muñ sax bati gannaaw mu ne baax na dem leen bu suba mag ñëpp rey naa leen moom jeex nañ ci dëkk bi su ko defee léegi daal li ma soxla ci yéen ñoo xam doole ñi le ngeen tabaxal ma bâtiment boo xam ne du laal asamaan te du laal suuf ci diggante jaww ji lay ne léegi nag dem leen mag ndaw ya dem boole koog jàq na ñun de xam naa suba rek lañuy ñuy dee buur bi armée bi ma xam ne dooleem ji te lim ñu sant xam nañ ne mantane ñun danañ dee te fekk nag avant mu leen koy sant dafa leen wax ne yéen nag laa wax ne dem leen kenn ku ne rey baayam ak yaayam ñoom tamit ñu dem kenn ku nekk rey sa baay rey sa yaay ba mu am ca benn xale bu ñor moom mu jël baayam denc ko reyut ko léegi nag ba leen buur bi waxee noonu suba laay xaar góor googu xale bu góor boobu xam ne rayutoon baayam dem wax ko ko ni ko bàyyi ñun dee xam nañ problème buur bi de dafa ne bu subaa nañ ko tabaxal bâtiment boo xam ne daal du laal asamaan du laal suuf te foog ñu def ko am nañ doole buñ ko defut mu ray ñu mu ne waaw buur bi dafa ñor lii tax mu ray loonu mag ñi mag ci pénc ci xelaat lañ koy doye yéen nag ay ndaw ci pénc doole lañ koy doye léegi nag rey na borom xalaat yi bàyyi fi borom doole yi dana leen liggéeyloo ba ngeen dee waaye bu ngeen demee rek maa ngi nëbbu nag wax ko ne ko buur bi d'accord nañ waaye daal dañ laa terelee nga dimbale ñu rëddal ñu plan bi tey buur bi dee de gaa yëpp daje buur bi daje ñépp daje mu ne waaw li ma leen santoon daal feer yaa ngi beton baa ngi ciment baa ngi ndox maa ngi suusaa ngi tabaxal leen ma bâtiment boo xam ne du yegg ci asamaan te du yegg ci suuf ci diggante jaww ji lay ne ñépp sëgg jàq tiit benn xale bu am ñor mi reyutoon baayam ne ko waaw buur de sami'na wa ata'na d'accord nañ ci liñ ñu sant ndax waxi buur jëfee la sant waaye daal comme yaay suñ kilifa dañ lay ñaan ci sa tedd nga ak fooraay nga rëddal ñu plan bi boo ñu rëddalee plan bi rek après ñi mën a jeexitalu ci sa barket tànk yooya mën a def liñ ñu sant ah buur ba sëgg ci Guinée xam na ku rayut baayam de mag ñaam na ko des de ci lañ dem vérifier ji ba ndeketoo xale bi joxe xalaat boobu mooy ki rayutoon baayam moo waral baay ji moo leen jox xalaat bi foofa la mbir ma doxee yàqu moo tax kon pénc mi dëkk bi association bi daayira bi mbooloo mi nañ bayee xalaat yem mag ña su ko defee nag laaj doole yi ak am-am bi ndaw ñi moo tax mag ñi daan wax ne mag dana toog ci ron piliyaanam wala mu toog ci ron sajaadam di séen la nekk France yow nga dem ba France taxaw ca kaw montagne yaag étage yu gudd ya fekk gisoo dara mag dafa am expérience u démb bu am bu tey buñ leen géntee ci pénc mi fi ñu hegg duñ fa jëm nañ boole xelaatu mag ñi ak doole ndaw yi dëkk bu ko jël dem mbooloo mu ko jël dem état bu ko jël dem association bu ko jël dem famille bu ko jël dem waaye foo defati dajee xale bàyyee ko fële ak ab jiinam wàccee tubay ja naanaam mostu siw naan may ma ma am xelaat ñu ne ko yow lañ laa xelaat loo xut yow kay lañ lay laaj mooy joxel ñaari million te kat bu ñu rëddee bâtiment bi del xëy si boo ko mënut ki la war a xëyal jox ko li muy xëyee yow loolu lañ la laaj waaye sa xalaat kenn laaj ko ana mag ñi nag troisième âge yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne yéen nag dajale leen seen xalaat nuñ koy defee ak fuñ koy war a def ak nu ngeen bëgg mu mel waaye léegi ndaw yu bari dañoo jàpp ne mag ñi xamuñ xalaat koo wax ñu ne ah kii waaye euh, jamono dépassé na ko fekk yow mii la dem yow la jamono dabagut yaay ki tarde yaay ki nga xam ne doxoo sax moo tax jamono yow sax maanaam dabagut la waaye kii nga ne jamono dafa ko dépassé kii mooy ki dépassé jamono moo tax léegi ndaw yépp li leen sànq mooy sofantal xalaatu seen yaay yi li leen tardeel mooy maanaam fooyee seen xalaatu baay yi ku la ci sa baay woo xelaatal la mbaa sa yaay nga ne non non bi xamul dara non non paa bi xamul àdduna paa bi la gën a xam àdduna ndax moo la njëkk ci àdduna bi xam àddunaay démb xam àddunaay tay yàgg eh, sonal sa maam ba sa maam gërëm ko yow doo tus xamoo dara lu dul topp téléphone yu bon yi ñuy ngacc sa ndoxu bët mi nga jël sa nopp yi takk ci sa casque bi muy yàq sa nopp yi nga wàccee sa jiin bii ba sa njiit la yem a ngay feeñ boole ko xasaw xut tilim nga jàpp na yaay ki xam dara fekk xamoo tus kon penc mi nañ laaj mag ñi xalaat te laaj xale yi doole te wàññi réunion yi réunion réeroo rek lay jur réunion li ci ëpp du defar dara fexe ba am leader rek xadduna lépp leader rek moo koy doxal ku baax ku jub ku ragal yàlla ku am volonté ne ñëw leen ñi dem ku dem ma dem ku demut ma dem kooka tamit nag ñu ne ko kon yow doyloo nañ la ci sa xelaat ci sa lépp jiital la mu ne li ngeen ma doyloo dama leen koy delloo dellooxaat nañ bokk doole ji maag yéen a ko bokk ak joxe bi nañ jël xelaat yi delloo ko mag ñi luñ bëgg ci dëkk bi mu sotti luñ bëgg ci région bi mu sotti luñ bëgg ci association bi mu sotti luñ bëgg ci famille bi mu sotti suñ ko defee rek am jàmm sànni soxor ak iñaan fële yëg ne nit ku nekk résultat wu mbokkam mooy mooy résultat am yëg ne nit ku nekk résultat wu maanaam euh, maanaam ndamal mbokkam mooy mooy ndamam ndax buñ nekk nettali famille bi rek la ñuy wax famille njaayeen ñoo fi def lii famille njóobeen ñoo fi def lii famille ñaseen ñoo fi def lii famille siise siise ñoo fi def lii xam na loo xam ne bu xasee sotti kenn du ko adressé ti nit mais dañ koy faj dañ koy mujj ko adressé askan soo boobaa nag boo gisalee askan wi ci sa bopp rek lépp dox waaye suñ penc mi lépp ko yàq loolu rek ko yàq xañaan soxorante xañaan nga sax duñ cee xemati ne du fi am mais dañuy dem li dem ci maam man yi sëriñ yi ñu jëm laa liggéey ba loola sax échec bu ko kenn yëkkateeti gaa yi dugal la ci seen xaatim yooya mu xamas yaag mu sallas ya sëf laa su ko defee loola da dara lu ci amati dutuñ ko waxate xanaa àllaaxira lañ koy tuddeeti moo tax kuy weddi affaire yi xaatim yi ak yooyu nga xamut maam Alaaji Malik mu baax ma bañ ko laajee xaatim moom noo ko gisee mu ne gu damm ga sax yàlla buñ ca dugal Malik waxuma la gu dammut ga kon yooya jarta weddi lu jara alquran ah maanaam àdduna lépp dafa dafa tegu dafa tegu ci ay texte dafa tegu ci ay norme dafa tegu ci logique yooyu yëpp nag lu ca tegu rek mën a dem kenn mënu ca dara même bu ko yàlla dogalee te fekk gërëmul ko tamit dana am ndax yàlla dana dogal gërëm dana dogal te du gërëm wala yarda li ibadihi l kufra kéeféer moo ko dogal mais gërëmu ko iman nag moo ko dogal te gërëm ko kon lu bon yàllaa ko dogal mais gërëmu ko lu baax yàllaa ko dogal te gërëm ko kon nag nañ boole suñ am am yi te ñu ndax ñi mën a dem ca kanam kenn ku ne lam man nañ ko ko baxee loolu jàngee nañ ko ci noddu ah Abdullah ibnu Saydin mii li muy amee amee noddu gi mu jaaree ci moom waaye yonent bi dafa ne ko demal nga jox ko Bilaal nga sakk ko moo la ko dàq moom mooy koo xam ne maanaam moom moom moo la gën a déggu kàddu te moo la ko gën a neexle kon nañ ko ko jox kon suñ bëggee penc mi dox mbir mu ne jox ko waayam waaye bul ko jox sa waay boo ko joxee sa waay rek mu yàqu kon nañ ci bàyyi xel nodda ngoog ak fi mu soqee ko wax naa la année ba première année ci gàddaay bi wax naa la sahaba di diisoo giñ ci doon def ak a ci xelaat ya njëkkati ba yàlla jaarale wax yu ilham ci Muhammad ibn Abdullah ibn Saydin mile ba mu indi ko waaye wax naa la tamit ba mu jaaree ci moom yonentu bi ne ko dafa jaar ci yow waaye du sa xalal demal nga jox ko Bilal moo la gën a neex baat moo la gën a sori kàddu te kat xoote kàddu gu neex da caa baax de waaye léeg-léeg kàddu dana naqari nga nga jaaree ca kàddu gu naqari ga ba bañ waaja la muy xoote xanaa mu nekk sa intérêt waaye danga nga dégg benn waay dem ci dëkk wala nga dem ci gox noddu noddukat ba yow sax nga jaare waay baatam bu naqari bii kenn xamul lu muy wax ndeketoo kat yow la muy woote moo la neexut ba moom mi koy woote sax far naqari la waaye léegi léeg da gis waa ji na muy xëccee baat yaak neex nga tax waaye waa ji not dam gii de moom tabaarakallaahu dafa mujj sax man am ak jeexital ba mënumaa ñàkk julli ji kon mbir mu nekk boo ko joxee waayam rek bu ko yëkkatee rek dañ xam ne moo ko moom te su boobaa bu ko yëkkatee rek ci ko moom ku ne tamit dana dem wuy ci loola waaye xoote sa baat ba naqari day waral li ngay xoote kenn du wuy si dafa dafay yàq lu bari waaye day am ñoo xam ne da wóor ne boo doon julli ji fekk leen ca jàkka ja ñu jiite da ngay kontaan da ngay wax ne tey ma déglu alquran ju neex billahi tey sama roox gi duddaat waaye xam na ñoo xam ne buñ ni jiitee nañuy jàngee fatiha ja nañuy jàngee saarwa boo ne la jàkk rek yow da ngay mujj tayal dangay wax mënumaa ñàkk dem jàkk rek waaye dëgg dëgg ki ma fi fekk ak ni ma ko fekkee gën lu ma moom daal kàddu gu naqari daal fenn rek la ko ñëpp nangoo consommé kaay leen añ é eh, kooku de lu kàddu ga naqari naqari ñëpp wuy ji ak kaay leen jël waa ji moo woote mu ne kaay leen jël foofu moom foo ko déggee lu kàddu ga naqari naqari dootoo seetati dootoo déglooti naqari kàddu ga mais nag yaa ngay déglu la ñuy woote la ca gannaaw loola kaay leen jël yàlla bu mu nekk xaalis wala daraja wala ay ndomba tànk ku ko mën a wax lu baat ba naqari naqari seetatoo ko waaye ñu ne wala suur ya dajee nga ne a ah, demal wooy ni ne añ bi sotti na ñëw leen añ ci rawatina ba daaray naqari ca bu njëkk ba nga xam ne ñëw leen añi bu ko waaje waxee bala koo ñaareel bool ba jeex kenn ku nekk yaa ngay dajee ka nga dajee ne ko li nga ñaag ñaagal ma ci du ko wax ñaari yoon waaye nag bu jëmee ci wàllu yàlla rek nga commencé naan waa jii de baatam bu xuur bi baatam bu naqari bi li muy wax kenn xamu ko nangam ak nangam lay yàq ndeke la muy woote moo la neexul rek bu la waaj bu la bu la bu la bu nag day dem ba la muy woote naqari aleel la kon nag lu ca mën a am daal bëgg nañ ci noddu baat bu neex waaye déggee nañ ci tamit noddu dañuy sopp boo wéetee sax foo mën a nekk noddal loolu la yonent bi waxoon Abu Saïd al Xudri ne ko gis naa la ngay ku bëgg gàtt di sàmm waaye booy sàmm bu la noddu fekkee waxtu bu la fekkee ci àll ba noddal lu dégg sa baat bi jéggalul la yàlla lu dégg sa baat bi ñaanal la yiiw abdurahman moo moo génnee hadis bi fa an abdirahman ibni abdillah ibni abdirahman ibni abi sa saata abi moo wax ne annahu axbarahu anna aba said al qaala lahu inni araka tuhibu alganama walbaadiyata fa ida kunta fi ganamika aw baadiyatika fa adanta bisalati farfa sawtaka binnida fa innahu la yasmau mada sawti almuazzini jinnun wala insun wala shay'un ila shahida lahu yawma alqiyama qaala abu said samictuhu min rasulillahi saa sallam buxaari yu danga koy fekk demal ci buxaari yu da nga ko fekk ca ah, maanaam buntab azan ci safha juróom benn téeméer ak juróom ñeent nasaa yi moom mi ngi ko indi ci juróom benn téeméer ak ñeent fukk ñeent ci buntab azan ibnu majaha mi ngi ko indi moom tamit ki ñetteelu xaaj ba maanaam ca buntab juróom ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett foo nga koy fekk imam ahmad yaa koy fekk ca junne ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett fa nga koy fekk kon hadis baa ngoog di hadis bu wér moo tax yow sàmmkat bi may déglu boo sàmmee ba dégg ba tusubaar jot noddal donte yow kenn la nga julli yow màngaankat bi noddal yow ma ca gaal ya diggati noddal yow mi nekk ci sa bureau sax bu la neexee noddal yow baykat bi nekk sa tool état bu la mën a fekk moo xam yaa ngay ruuj moo xam yaa ngi ji moo xam yaa ngi bay moo xam yaa ngi bac moo xam yaa ngi bees moo xam yaa ngi sol gerte ga bu waxtu wa jotee wit noddal ña nga ca ànd nga bokk ak ñoom julli boo fa nekkee yow kenn nga julli kàddu googu nga yëkkati sa kàddu lu ko dégg daw noddu day dàq seytaane moo tax foo noddee rek seytaane daw di tojal ba déggatul kàddu ga mu door a taxaw looloo waral ab liir bu juddoo bees ñi bëgg dàq seytaane ci moom bañ mu jege ko ñu noddal ko ci noppam ndeyjoor seytaane daw ñu noddal ko ci ñu liqaamal ko ci noppam càmmooy ñaari darsu juddoo ca darsu bu njëkk bi mooy ne ndeke kon kii dee rek ndax noddu nañ liqaam nañ gannaaw nodd ak liqaam lu ca tegu julli moo tax fi mu dee ñi di ko jullee dañ ko noddaloon nañ ko liqaamal nañ ko duñ ko noddalaat diggante baa jege da imaam day wax defal leen kabaar rek defal leen kon sàppe ya rek kabaar moo tax kon ndeke ñun ñii buñ doon julli nodd nañ noddal ñu yéen déglu buñ doon julli liqaamal nañ ñu taxawal julli rek moom i dese fu nag yàgg naag jege naag yëpp jege na rek ndax ka koy taxawal sax ba muy liqaam dafa wax ne xadd qaamati salaatu xatu taqrib la mooy jege naa taxaw julli gi duhul xatu takfir du xatu taqlil du xatu taxqiq mais xatu taqrib la mooy jege naa taxaw julli gi kon nag yéen ñi may déglu ñëpp nañ yëg ne noddal nañ ñu liqaamal nañ ñu la ca def nag mooy jullee ñu te jullee ga moom ak noddu gaag liqaam ga dafa jege ba baamu haatuñ ko xam naa ñu baree bari ñu ngay may déglu naan yàlla na yéex yàlla na yéex waaw waaw amiin na yéex waaye yow mi koy wax nag na yàlla na yéex yàlla na gën a yàgg rek na fekk bul nekk mag be góor gu baax gële ma fekkoon ko fëleet moo ko tafsir balla hakim la muy bàyyi faal sekk mu ne ma ku yàgg mënta yàggati boo fi xasee yàgg nag xam juróom-ñett fukki juróom-ñeent fukki at juróom-ñaar fukk ku deexati nga ne waay yàlla na ko yàlla yërëm te yàggal ñu fi waaye waaye mu ne ma ku yàgg man te yàggati de waaye tey nag ñi fi yàgg ñëpp ñoo fi gën a bëgg a yàggati ba ma ko demee siyaara ji la ma jox darsu boobu muy darsu bu xam-xam solo mu ne daal sëñ Haadi maa ngi lay xamal ku yàgg man ta yàggati kon nag loolu nañ ci bàyyi xel waaye léegi ku dee rek nga ne ah, waay waay yàlla na ko yàlla yërëm waaye ta yàggal ñu fi de ba kañ nga yà nga gën di fi yàgg di wax loolu ba kañ foo ko teg kon nag mu ngoog ku yàgg man ta yàggati de kon maanaam nodda ngoog boo ko defee saytaane daw su ko defee di tojal kon moo gaaw ci dàq saytaane moo tax ñu koy dàqalee xale bi bi mu juddoo ñu noddal ko liqaamal ko jullee ga moo ci des waaye la ma jaaxal li ko yàq lépp saytaane mañ dàqoon paa yi ñoo ko koy dàq rendi xar mi noddu li seytaane daw dawa daw ba kenn déggatu ko paa ñibi na nañ ñoo noddoon li xaam nañ ilimaan ja ñibbi na sëriñ ba dem na moo la noddu doon li xaamalam la nga xoo sa morom yi ne leen ah paa yi de na dàq na suñ xarit bi kaay leen ñu xooxaat ko suñ xarit bi di seytaane ñi allié ak moom mi ngi nii mag ñi dàq nañ ko de ñëw nañ fee seen kaala yi wàccee nañ fi kaamili alquran noddu nañ li qaam nañ saytaane ngay daw kenn xamul fu mu ne waay waay waay ñëw leen yéen sama moroom yi ñi neexal ko mu ñëw ñi ñëw nag ñi bi na rek sëriñ ba dem na rek tabaarakallaahu ñi luye ponkalam baaf baasee mbedd ma tabaarakallaahu andi ko wàccee sées ya xoo moromam ya ñu wàccee seen tubay ya ña ngay fekki naan kaay kaay yooyu kaay kaay kaay yooyu mooy kaay yow saytaane rek mag ñe la dàqoon mais ñun mag ñi ñun ndaw ñi ànduñ ci kaay kaay kaay kaay jooju lañ koy wooyee bu ko defee tamit ne ko nag xanaa dana la doy nag wax dëgg yàlla nga mën a ñëw kay ñu ngi lay neexal sax balay feccal yaa ñàkk jom yàlla may la teraanga ju tey ni doom ni mu jafee xam na yonent yu dund ba génn àdduna amuñ ko yonent yàlla Isa ca la bokk yonent yàlla Yaxya ca la bokk am na ki ñoo xam ne bañ koy xam ak téeméeri ñaar fukk am nañ ko Euh, Ibrahima ca la bokk am nañ ci ñoo xam ne fanweeri xat sax nañ bët bu set ñu ñaan yàlla doom door koo xam ku mel ni Sakariya ci rabbi habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaquba yow nga am ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom amaguloo fanweer yàlla may la doom amoo dara dara loo njukkalee yàlla ne ko man daal li ma lay njukkalee mooy bàyyi la fi rek dem ànd ak saytaan yi kese loolu laa man tey ma feeñal ko nag ba nga xam ko danaa wut tamit ñu ma ci àndale ba nga xam ko koo sa morom yi ñu ñëw ak yow jànq yaak jeeg yaak mag ñu maanaam ndaw ñu mag jeeg jeeg yu perdi ya ak ndaw yoo xamul kilifa ya su ko defee tamit ñëpp jaxasoo di fecci koo saytaane tamit wàccee seen tubay ya loo ca man ma ne nag doom joo xam ne de ba ñuy takk yaay ja ñàkk na sens ñi feccal ko feccal yaay ja ñàkk jom feccal sa jabar ji sa jabar ji am doom amoo dara nga ne tamit maa la feccaloon yow sama jabar waaye tay ma feccal sama doom ji ah doom joo xam ne feccal nañ yaay ja ba muy sëy si feccal doom ja keroog ba mu juddoo waaye waaye doom ja bu màggee dana gaaw dana mën a fecc de moo tax doom yi léegi ku ca xam juróomi at tele bi moo koy taxal moom boole ko tamit ma ngay fecc ku ci ku ca fecc rek mag ña dootuñ mën a duggati te kat la ci ëpp góor ñuy fecc la te bu njëkk ba xam nga góor gu daan fecc gàcce la waaye léegi góor ñi fekk ñi ñoo ëpp jigéen ñi dàq leen a fekki ba fu ma nii xeeg danañ jamono joo xam ne waaye waaye nag fekk mi ëpp na waaye waaye dimbale leen ñu waaye góor ñi may jigéen ñi nag ñi mën a fecci foofu de lañ toll bu njëkk ba kay jigéen ñi may leen góor ñi waaye léegi góor ñi may leen jigéen ñi foofu lañ tollu àdduna bi tukki na wallahi li yàqu yëpp kenn mënu koo wax ñàkk jom yàlla may la doom nga waroon a am jom ne sew sama doom ji wallahi tay ma njukkal yàlla danse yi nga traversé fa bëri yàlla mënoon naa jël sama sama toqantal mën yu mu nekk lu feebul lu doom mënta sosoo yàlla mënoon na maa natt ma takk soxna ba pare mu yóbbu sama ngóor ma néew kartan mënumaa fay ak yow yàlla mënoon naa dogal sa bëtutu njureel bi am problème man am naa kartan sama ndoxu mën yu baax na mais yow nekkoo ku mën a am doom conséquences yi yàlla fanqal nañu ko suñu toqantal mën ni yooyu mu boole ko ba la ca sosu sosu sa fi mu jaar ak li mu traversé ak la ca dee ci ci maanaam zaraat ya kenn xamut nu ñu toll yàlla tànn ca lam ca tànn segg ko dénk ko malaaka mu koy wattu ànd moom lam koy mën a mën a wattu biir ba di dem ak a yokk di dem ak a yokk dansé ba ca ne mënoon naa yàq ci biir mu avorté ak la ca xew ñaata avorté mënoon naa dem ba ñàkk avorté mais doom gi ci boppam dee ci biiru yaay ji ñu ne nuñ koy génnee ak fa muy jaar ak la ca aju lépp lii lépp yàlla fanqal la ko mënoon naa dem ba doom ji jamono ji soxna si matu yaay ja dee bàyyi fi doom ji wala sax doom ji dee bàyyi fi yaay ji mënoon na sax ñoom ñaar ñëpp dee waaye yàlla mënoon na sax ci kartanam rey la yow jëkkër ji ñaataa fi dem wuti xaram tabaski wala xaram ngénte ndeketoo ñoom ñooñu duñ ngénte du leen fi fekk lii lépp di ay conséquences yoo xam ne suñ borom fanqal na la ko lan ko waroon a njukkalee mooy ne waay waay andil leen ma kaamilab alquran bi xoolal leen ma ñi man nga làmbu sa poos te bokk sa ñay jàng wàccee ko togg ay laax muy sarax nga rendi gàtt bi togg koy ñam ceeb yu baax jox ko nit ñi ñu lekk ñi hendu jàng alquran su ko defee tamit paa yi ñaan suñ demee ba ngoon jot nga xooteb daayira jàng ut ku xóot ku man ku xam diine mu jàngal leen te ñiy sikkar yi tudd yàlla ba dënn ya tàng ngeen a ñaan leen sama doom ngi ñu tasaaroo nga ne doom lii laa xam téeréeb yàlla bi laa xam moom laa la lebal danga ma ko fay de noo ma koy fayee mooy lul nga màgg fexe koo mokkal ñaareel bi góorgóorlul li may ñaan mooy jiitu la su ma dee nga wàcceel ma kaamil bi ñaanal ma ko ma dajeeg sama borom waaye de wax dëgg yàlla doom daal man la ma lebaloon sa yaay ba muy sëy si fecc ànd ak saytaane jàmbu yàlla su ko defee tamit li ma lay lebe tertoo la yow mooy tamit tabaarakallaahu mooy feccal la doom je boo xamoon jom xamoon boppam tamit boo dee dafa war na luye ji ay baaful feccal la ndax loolu nga ko lebaloon te kamaa tëddiinu tudaalu kon nañ ko bàyyi nañ bàyyi ngénte yeeg ceet yi luye ji ay baaf xale yu góor yi léegi ñu ci bari xamatuñ kilifa rawatina ñëw fii ndakaaru def ñaari noor rek jàpp na yow ku branché nga ku xam dara nga ku nangam nga ku yeewu nga nga ñëw fekk fa sa mar sa sa sa sa taawu baay ak ña la mag ñu terele ko nga ne dana fi xam kër gi kenn xëppul ma fi nangam yooyu yëpp lu bon la nañ koo bàyyi te dëkk yu bëri ilimaan ja ndeysaanam dafay bañ ko fa musique ak mag ña waaye léegi dara nga ca mënul ndax kilifa amatul presque daanaka dëkk boo dem tamit kenn bañatul dara ndax wala boo bañee tamit doo ko ñemee wax sa kër ak bopp gi sax dem na ba naka xilifatoo leen xilifoo sa jabar xilifoo say doom xilifoo say nangam dara nga ca mënut rawatina lépp nag feebul rek am doom mu commencé jënd saako ceeb jënd xaram si nga foog moo la xilif ba léegi lu xale yi waxut ci kër gi du fi dox su boobaa tamit yow rajulu duyuus nga yonentu ba muy lim ñee dem safara góor ak yambar ci la bokk mooy góor goo amul kaddu ci jabaram amul kaddu ci njabootam lu leen neex ñi def te du ca mën a dindi dara kooku ku bon la li yàq tey penc mi yàq dëkk bi yàq dëkk yi rajulu duyoos ki la bokk mooy góor ak yambar te lool kon nodda ngoog dana daq saytaane nodda ngoog boo ko defee ba pare nga ne allahuma rabbi hadihi daawati wa wasalaati alqaima aati sayidana muhammadin alwasilata walfadila wa buasu maqaman mahmudan allazi waadtahu yonentu bi nee na ku ko wax bu yowmal qiyaama man maa lay ramu xallat lahu safaati yowmal qiyaama kon boo noddatee waxal li le bu nit noddee toppandooral la muy wax nga wax ko waaye bu dul bu ne hayya ala salaati hayya ala falaahi benn bu ne xam dana ko wax ñaari yoon hayya ala salaati ñaari yoon hayya ala falaahi ñaari yoon da koy remplacer laa hawla wala quwata illa billah nga wax ko ñeenti yoon door a mottali noddu ga jàng ñaan gi yonentu bi ne bu yowmal qiyaamee ma ramu la kon loolu lu ko gën a xam na doole lu ko gën a lu ko ëpp doole xam na ñaareel bi ci ngëneelal noddu diggante noddu ak liqaam ñaan gu fa nit ñaan yàlla nangu ko du ko delloo buñ noddee rek ba fa ñuy liqaamee rek nga gaaw ñaan fa bu la neexee bu ñu liqaamee bala ñoo kàbbaar nga def foofa ñaan googu ñaan yàlla du ko delloo yonentoo ko wax laa yuraddu duaau bayna al asaani wal iqaamati abu daawuda moo solo hadis bi nasaayi tirmisi yu loolu hadis bu wér wéer wér la su ko defee kon nag noddangoo ak liqaam ngëneel la yonent bi daana wax ne ñaari place a ngi ni yoo xam ne yàlla du fa delloo ñaan wala néew na lu mu fay delloo ñaan mu ne sintaani laa turaddaani aw qallama turaddaani du'a inda nidaa wa inda al ba'si xiina yulximu baaduhum baadan hadis la bopp seeti ko ci Abu Daawud ci buntab jihaad ah daari miyu andi ko ci buntab salaatu albani wéral na xadis bi ba demee ci jaami albani da ko ci fekk kon yonentu bi ne ñaari place ngi mooy nodd fi ñu noddee ba pare loo fa ñaan yàlla nanga ko beneen bi tamit mu ne mooy ah fi ñu takkee xare ngir war a jaamaarloo xéeféer yeeg jullit ñi war a xeex loo fa ñaan yàlla nanga ko waaye noddu nag am na yuñ ci bañ am na yuñ ci sopp booy noddu liñ bëgg nga laab laabal ci xadas laab ci xabas boo waree sangu jana ba sangul soo warta sangu jàppal soo xamee ngantal jàpp fekk tiim nga waaye nga kay boo noddoon fekk yaa ngi janaba terewut noddu ga wér na duñ ko baamuwaat waaye nag booy noddu tafee yaa ngi janaba ca biti jumaa ja ngay ne koo xam janaba wartu dugg ci jumaa soo fekk jàppoo wala tiimoo noddu ga wér na kenn du ko baamuwaat waaye boo àndeeg tiim ànd ak jàpp waaw ndeem ngànta xam na ci jàpp ga nga tiim mu gën a baaxati ndax mooy connexion bii tax nga gën a mën a connecté wu njàpp li dafa taxaw taxawaay jënd connexion su ko defee na nga mën a connecté wu directement ci sa borom ci baat yu màgg yi ngay tudd yonentu dafa daan sib tudd turu yàlla fekk laabut nit sax nuyu na ko fekk maanaam laabut mu ne ko may ma ma jàpp man laa man laa man laa fay nuyoo ci asalaamualeykum wa aleykum salaam jooja turu yàlla woowa muy tudd rek muy baatam salaam ndax salaamul muminul muhayminu mu bañ ko tudd fekk jàpp ndax jullit bu jàppatul rek amatul connexion te xam ngeen ne ku ci amul connexion nag ah ku la woo du la jot ko woo du ko jot jamono ji nag nit ñi connexion wu seen morom lañ gën a bëri sa si connexion wu seen borom koo woo mu a Nikita Pas ma ne ah mbaa yàlla lay jokkoo yàlla lay jokkoo dina baax waaye Nikita Pas yëpp sa morom rek li ñuy jokkoog suñ morom yi mu ëpp li ñuy jokkoog suñ borom yi toroxtaane dal nañu su ko defee dañoo bëgg booy noddu nga jublu xibla loolu lu baax la buy ci masa bu maali dafa ne illa isma ngir déggale loolu rajo ko folli kon boo jubluwul xibla tamit rajo bi dana ko yóbbu fenn waaye liñ sopp même buy rajo nga jublu xibla waaye am na baat yoo xam ne boo ko tuddee boo dee booy noddu ba xegg ci hayya alal salaati da ngay gestu sa wàllu ndeyjoor bu ko defee tamit nag hayya alal falaahi nga gestu ci sa wàllu càmmooy noonu la ko daan bilaal doon defee waaye dañuy bëgg booy noddu soo ko manee nga jël sa ñaari baaraam yi poli baaraam yi ah, ah, wala taayaay ah nga nga saxañ ko ci sa nopp bi bilaal noonu la daan def day tax li ngay noddu gën a déggatulu kon nodda ngoog tabaarakallaahu nañ bañ nag ci noddu gi di xëcc lu xëccuwut wala ñuy ñàkk xëcc luñ war a xëcc nañ bañ a yàq baat yi bokk na ci noddukat yi allahu akbar foo ko teg allahu akbar mooy ay junji rek ay junji nga ko la ko xooloo allahu akbar lañ wax waaye nga ne allahu akbar wala nga ne allahu akbar yow ngay laaj ndax yàlla xam na di ah, xam sa googu istifham la allahu ndax yàlla xam na ku la ko wax kon nag wala nga nekk ci al banaam ashadu ashadu an laa ilaha illallah nga ne ashadu an laa ilaha illallah yow ki ngay woo bu ñëwee ñëpp daw ashadu mooy firi gaynde gaynde gi ñëwal waaye gaynde gi gaynde gi yàlla gaynde gi benn la ashadu lañ bëgg wax moo ne waay waaye boo ashadu rek mooy gaynde gi waaye beneen bi mooy bu ñëwee ci xaya xalal falaax yi falaax daal di sidda ko waaye yow dañu la hooteel ci texe gi yow na nga ne maa ngi woo baykat bi falaax mooy firi baykat kon ñaareel danañu yàq baata falaax falaax rek waaye boo ko siddaa rek muy firi baykat ashadu waaye boo ne asadu rek muy tekki gaynde allahu akbar waaye boo ne allahu akbar da ngay laaj yàlla am na ak akubar waaye boo dee akubar pëcc ko ay junj yi rek lay tekki kon yàq gi ñu yàq noddu te mu bëri lool tax na daal dëgg-dëgg noddu jeexital gam waroon a am dëgg-dëgg amatu ko ci lu bari ndax léegi suñ jàkk yi rawatina jàkkaay ndakaaru yi daanaka xéexée am na ci jàkk yoo xam ne bu la fa noddukat bi fekkee daal bu noddee doo bëgg lu xaañ ko rek wala jug songoog moom xeex moom ndax dafay loo foñloo mais bégloowut basiru wala tu naffiru la yontu bi doon wax waaye dema dema dem nekkoon ku doon liggéey ba rek retraité jàll bi ko ñëw retraité nga nekk ci koñ bi bëgg a xam accès ca kees ga rek ne man kat ci noddukat yi laa bokk ñi ne maay wax maa ci li xaamkat yi ñi ne déere maa war a wax bisimilah imaam war a ñëw ñi ne maay denc ci kees ga ñi ne maay laaj dëgg dëgg dëgg daal la ca ne yëpp kenn mënu koo wax yéen a ma ko gën a xam tax suñ suñ yi li ci nekk ci feebar doy na feebar jàkka ya ñu waroon a dem tey mu nekk hôpitaux ya ñu war faa dem faju ji jàkka yaa gën a feebar ña fa nekk waroon a faj nit ñi ñoo gën a feebar ñi ci gën a bëri ci xëccoo daraja rek ci yu kenn xamut kon noddangoog ak ngëneel yu rëy li mu làmboo su ko defee nañ mooy tëddi ko yàq baat ya nañ mooy tëddi ko timit tabaarakallaahu di noddu te fekk yàlla taxut ndax képp ko noddu te yàlla tax yonent bi nee na juróom-ñaari rek ku ko noddu bu yowmal qiyaamee te fekk yàlla tax yow boo deexee suuf du lekk sa jëmm ji mu ne noddukat yi bu yowmal qiyaamee tamit ñoo ñay gën a yëkkatiku na al muazzinuuna atwalu anaqan yowmal qiyaamati la yonent bi wax waaye loolu nag dañ koy wax mooy noddoo ngir kees gi de noddoo ngir sarax ya de nodduloo ngir nangam ak nangam de da ngaa noddu rek li wajhillaahil karim kon ayaat yaa ngoog ci ay wàllu si na amanu laa tattaxidu alladina taxadu diinakum husuwan wa laiba min alladina utul kitaaba min qablikum wal kuffaara awliyaa loolu wax naa la ko su ko defee xam naa ne bu subaa ci waxtu wi boo ma toppee ma ñëw ak yow nag ci fanweereelu yaa ayyuha ak juróom-ñaar foofu nag yàlla nga koy wax ne yaa ayyuha alladina amanu laa tuxarrimu tayibaati ma axalla llahu lakum wala taatadu inna allah laa yuhibu almuctadina wa kullu ma razaqakum allahu xalaalan tayiban wattaqullaha alladi antum bihi muminuuna maayda aaya quatre vingt sept jëm ba quatre vingt huit da nga ko ci fekk ko defee suba mooy nekk suñ bopp darsu yal na yàlla yóbbuñu ci wa axiru daawaana ani alhamdulilah rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kar